impliqué wu ci wàllu politique plan de communication la wala dafa nekk loo xamante ne gëm-gëm la wala. waaw du plan de communication moom parce que boo xoolee man politique li ma yàqal dafa bari trop man aw ma lenn lu ma am ci àdduna loo xam ne politique moo ma ko may mais politique yàqal na ma parce que laata may nekk ci politique bi di wax mosuma dégg man nit ku ma saaga ndey man ku ma gis ñaari loxo nga may jox. jox ma cër ñu waxtaan man loolu laa mos a am quoi wala nga nuyu ma sa bàyyi dara sama loxo mais léegi même bu dul nit bu dul damay jàkkaarloog man di ma saaga da ngay gis ma dem ci internet bi gis nit saaga ma ndey ma gis nit yónnee ma ojo saaga ma ndey wala nit wala whatsapp saaga la ndey da ngay xam ne lii politique la. te loolu da nga koy fan yi jàll doon naa waxtaan ci sëñ Abdoulaye Mbacke sëñ Abdou Karim sëñ Moudou Boussa Diagne jaawale tur yi aspect politique bi tax na xawoon nañ maa jaxaseeg waa te man xam naa ne loolu su ma ko waxoon man man Cheikh Bara ma nga xam ne faj rek laay def affaire faj kenn nit moo may woo sëñ bi juum nga de man a eh, woy wax nga dëgg daa ne damaa juum mais comme da ngay politique ñi am intérêt politique dañuy sol seen dàll ñoom comme combattre ko politiquement te loolu lépp conséquence la yu nga xam ne politique moo ma koy indi tey sama nijaay ak sama yaay soxna May duñ buñ xëyee li ñuy def mooy woo ma alors pour xool ba xam tëj nañ ma wala tëjuñ ma xam nga ñooñu ñu ngi ci coono. Mm-hmm. Hmm? ñu ngi ci coono man sama nijaay fan yii